waaw gars yi maa di bu baax a baax voilà donc fi indi c'est appeler cette jeunesse patriotique à la mobilisation parce que déjà li nga xam ne moom xew Pikine Macky Sall gorom euh, euh, Mansour Faye Saint-Louis nous la ñuy imposer nijaayam Timbo Pikine te waruñu toog tey ñun sénégalais ba ñuy à une mobilisation lii am te des li xew Pikine duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg Macky Sall moomul Sénégal te il faut que sénégalais yi ñu xam ne li nga xam ne ñun ñooñu ko moom kenn waruñu ko nangu ñun waruñoo nangu en tant que sénégalais ay nit yu ñàkk orma ay nit yu ñàkk jom yu ñàkk fulla di ñëw di ñu imposer naka la ñu war a doxalee suñu dëkk tey boo xoolee li xew saint wii di nga xam ne ñun ay góor lañu ndax ñun ñëpp xam nañ ne Mansour Faye ak Abba Mbaye déjà y a beaucoup de questions ci ay transfert d'électeurs te seen différence sax bariwul waaye bi Abba Mbaye gisee ne Mansour Faye moo ko raw moom mu nangul ko boppam donc ñun ñëpp ànd nañ ci déggu leen kenn antuwaat Mam Diara Fam mii woote tey pour une mobilisation des patriotes pour ñu jàppale leen ci li nga xam ne moom mooy opposition foofu ci Pikine

jëlee na Assane Diouf Amérique ñun ñëpp xam nañu bant ci ban situation mu yóbbu ko Sénégal amul torture bu mu ko tegul nag ndax ñun injustice la ñuy xeexal te injustice la ñuy wax amul torture bu mu ko tegul amul ñaawteef bu mu ko tegul lépp loo leen gis mu koy teg nii mooy Assane Diouf mii nga xam ne dugalaale nañ ko ci conseiller bi lépp lu Macky Sall mën a def pour daaneel Assane Diouf ak lépp loo xam ne mooy patriote yi ak li ñuy xeex dina ci continuer sénégalais on demande à la mobilisation on demande aux sénégalais ñun ñëpp ñu genn nous ñu dem taxaw wa Pikine patriotes yi nag la patriote fu mu ci aduna bi ñun injustice lañuy xex té deug ñu fekk fa lañuy nous bu ñu nangu Macky Sall victoire bo xamné ne dafa lèr nañ aduna bi tek ci sen aduna bi yëpp di gis bi yëpp gis aduna bi lii dëgg mooy dëgg ñun suñu yoon nekkul ci ànd ak kan ak ku ànd ak kan waaye li leer te leer te àdduna bi yëpp xam ko te muy dëgg mooy victoire bi nga xam ne moom moo leer naññ Pikine nijaayu Macky sàll Abdoulaye Timbo ñu daan ko fa daan bu leer nañ ñu jéem a bëgg a foqati élection yi di ko forcé te buñ ko nangu c'est notre responsabilité maam jaara woo nañu ñun war dem taxaw suñu suñu frère bi bi suñu c'est notre bagarre à nous tous c'est notre combat à nous tous li ma les leaders de wi Askan vont faire exactement ce que nous di pour protéger victoire boobu ci buñu tok nak di seetaan Macky Sall ak injustice am ak fam ak baña bëgg Sénégalam di fokati victoire bi nga xamné wa Pikine ñoko ko wa Pikine ñoo jël sen nit fal ko Macky Sall fan la tek nitam ay nitam rek ñoo wara jité Sénégal ay mbokam nijaayam tantam yaayam di magu jabaram magu rakam lolu moy yan façon mbir ci Sénégal Sénégal lolu dafa wara a jeex ñun deug lañuy doxal ku gagné dañoo bëgg raw gàddu la ñu wax Pikine même bu doon juróomi bant la ñu rawee Abdoulaye timboo ñàkk na parce que li Macky Sall woote mooy raw gàddu nee na ku raw sa moroom gàddu te mbir mi leer na nañ diggante timboo ak li nga xam ne mooy waa wàllu Sénégal waa wàllu askan bi leer na nañ amatul benn discussion donc na ñëpp mobiliser wu lii ñu moom ñu delloo leen ko nañu delloo waa wàllu li waa wàllu moom waruñu woon toog sax di xaar ba Mame Diarra Fam di woote di ñaat suñ ndimbal waruñu ko woon toog di xaar waaye sénégalais yépp tey nañu mobiliser wu sénégalais yépp nañu mobiliser wu y compris parti politique bu waay mën a bokk y compris les ñun ñëpp nañu mobiliser wu banditisme bii nga xam ne moom moo war mu nekk Pikine ñu dakkal ko si saa si parce que bu ñu toogee noppi lii buñ ko jàllalee Pikine ñoom ñoo xam leneen loo xam ne dinañ ko jéem a jàllal te ñuy avertir Macky Sall on te met en garde gis nga li ngay jéem pikin bu ñu doon yow nga reculer nga reculer dellu ginnaaw benn te waxuñu la loolu rek yem ci gis nga élection législative yi di nga ko tëgg ci nii wala nga tëgg ko ci naa parce que Sénégal yow moomoo ko dañ la ko dénk te ñu la ko dénkee da nga ko war a doxal ni ñu la ko bëggee nga doxale ko te boo ko deful loo ci goree góobee ko ci te ñun nag loo ci bañul duñ ko ci bañ Macky foo ñu woo dinañ la wuyu foo ñu woo rek les sénégalais vont répondre sénégalais yi nag laay woo nañu am fulla am taxawaay am fayda te bu ñu nangu benn yoon nag Macky Sall imposé ñu ay saay-saayam ak ay bandeem soit mu dellu ginnaaw wala ñu delloo ko ginnaaw Macky on te soit on te fait sortir de la porte de la petite porte wala la grande porte ci yow la dépendre

boo bëggee nag nga continuer pousse rek di nga laal ba masa laal laalaake waa salaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.